kon bu ñuy waxtaanee sëñ Touba ak koor ak wàccaay yu mu ko joxoon ak ni mu ko daa dundale yu mel noonu la jiital mooy xamle bëgg gi mu ko bëggoon mooy jiitu ci wàccaay wi ndax cofeel ci lum amul doo ca mën a sonn doo ca mën a muñ doo ca doo doo doo ko jox benn wàccuwaay nga sax gis nga sax moo tax lépp lu doomu aadama mënta ñàkk suñ borom daf caa def daf ko daf cee dafa def ci doomu aadama mu bëgg loola muy lekk muy naan muy soxna muy doom lu ci mën di doon suñu borom daf ciy tàbbal ak cofeel ku ne xam na ne lekk doonu lu neex doonul doonul doonul lu lu noppale sonle la waaye suñu borom daf ciy def ak bëgg mooy tax doomu aadama yi di ci di di ko sàkku jëmmi doom sax booy xool bu cofeel dañoon la ca des lépp coono la la ca des lépp coono la sax nee na seeni àll ak seeni doom lépp fitna la ci yéen bu ci cofeel dañoon doomu aadama dootul dootul dootul tal doomam ndax lan lépp woo xoolee coono la di jooy guddi ak yeneen ak yeneen mu di ko def ci kawam mu di ko mën a muñ lu tax mooy cofeel gi yàlla dugal seen diggante cofeel googu nag la sëñ Tuubaa am ci koor bëgg goo xam ne bëgg gu tar la waaye nag lu ko waral daf koo bëgg ngir sunu borom bëgg ko ngir li yàlla jox koor war ma li yàlla jox koor ak wàccuwaay bu mag ndax weeru koor weer la woo xam ne sunu borom jagleel na ko lu bari loo xam ne jagleelu ko weer yi ci des loolu di tekki eh, tànn gum ko tànn ci biir weer yi ci biir mbindeef yi itam ci bokna ci wacce gi ci wacce alquran mom sunu borom alquran moy li nek ci aduna ta du mbindeef mom ci sunu borom lu bok waye sunu borom bim koy wacce nak dafa tan weeru koor mu wacce ko ci loolu taxna na weeru koor gëne loolu gën gën yitam sax gën rek weer yene ni ci dess waye guddig laylatul muy guddigi ci guddii nga xam ne sunu borom nee na xayrum min alfi shahr xayrum min alfi shahrin tanazzalu almalaikatu warruuhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hatta matla'i fajr guddi la boo xam ne moo gën junniy weer nag mën na juróom-ñett fukki at nangam te ci biir weer koor guddi la goo xam ne malaaka yi dañuy wàcc maanaam jibril loolu it ci biir weeru koor la ko sunu borom eh, jagleel waaye itam sunu borom moom moom jëf moom lépp ak ñi leen di jëf moom mbir yeeg yépp waaye teewul jëf ju ne ak ak fayam jëf yu baree bari sunu borom mooy fay lépp waaye daf koy jaarale ci malaaka yi waaye koor nag sunu borom daf koo tànn ci biir yi moom jagleelaat ko boppam ne maako moom te maa koy fay assawmu lii fa ana ajzi bi koor maa ko moom te maa koy fayal sama bopp doon jaar ci ci ci kenn. lool ci màgg gu koor am ci la bokk bokk na ci rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam wax na ne ku taxa ku woor weeru koor ngir gëm yàlla ak sàkkatu yaaba ñu jéggal ko ay bakkaaram yee jiitu woon yépp loolu it ci màgg koor la bokk waaye ngañaay li jullit ñi njëkk am ci yéefar yi mooy tamuy li ci gën a mag ñu koy fàttaliku ba tey Moy xaswatu badar muy xare badar Wa ci bir koor la lin ko sunu borom dafa ci bir koor ci la lolu amoon ba ca des mooy bu wéru koor teru bis bu nek sunu borom dana jële sawara dana manam ño xam sunu borom dana jële sawara ño xam ño xam dañu wara sawara rek yay ci ñoom sunu borom génni leen fa yóbbu leen àjjana lu tollu ci juroom benn junni bu weeru koor bi demee bay jaax limub mboolem bis yi lam ci daa génne loola lay ful génne lu toll noonu nga xam ne dana toll ci fukki million ak juróom benn daan xam suñu borom dañ leen génne sawara yóbbu leen àjjana ngir weeru koor kon ku ne gis na ne suñu borom jox na ko wàccuwaay jox na ko ab cër Sëñ Tuubaa nag lu mu bëgg yàllaa tax xubbiya fillaahi wa buxdi fiihi lii aw sala ma kuntu astafi sama bëgg ak sama bañ lépp ci yàlla la nekk lu muy bëgg yàllaay tax lu muy bañ yàlla tax du bëgg du bañ eh, lu dul loo xam ne rek yàlla daf ko bëgg wala loo xam ne yàlla daf ko bañ moo tax mu bëgg weeru koor ba di ko seereel sëñ bi day wax ne inni uhibbuka yaa shahra siyaami bila risin fa ahlan wa tarxiban bila adadi yow weeru koor man day bëgg naa la bëgg naa la bëgg goo xam ne dara ci nax-nax dara ci ay caaxaan dara ci ay neen dara lu dul bëgg rek bëgg la goo xam ne bëgg gu sell la loolu loolu suñ tubaab suñ la ko waxee ne ko kon maa ngi lay dalal di la tatagal te amul fu muy yem maanaam amul fu ma lay yemale washhad bi xubbika xubba zaati yaa amali maa ngi lay seereel yow weeru koor ne sama cofeel ci yow xubbu zaati la maanaam bëgg jëmmi weeru koor laa def man bëgg bëgg sa jëmm ji man weeru koor ni mu bëgg rasul nga xam ne dafa bëgg jëmmi rasul la noonu noonu la bëgg weeru koor moom suñ tubaab waaye inni uhibbuka wax na ko lu bëree bëri kon bëgg gi mooy li ci jiitu ci wàccaay yi nga xam ne moom la suñ tubaab am ak weeru koor bëgg googu nag tax na bu daan waaj weeru koor moom Serigne Touba bokk na ci ni mu koy waaje mooy daf koy teel a waajal teel koo waajal wàccaay wu yàgg du bàyyi ba weeru feeñ wala suba la ñu wóor wala nangam ni ko ni ko ni ko sama maas gi dene waaye daf koy teel a waajal moom sëñ bi ca rajab lay tàmbali di waajal weeru koor mooy ni ko ko waxee ni ko ilayhi qad tubtu fi chaabana an rajabin mujaddidan fi ka fashhad lii bi tarkida di xam ne ca chaabaan ak ca rajab ak chaabaan lay tàmbale di di ko waajal loolu la sëñ Bachir Amadou Bachir wax sax ne sëriñ bi dafa mel ne dafa jàppe woon weeru koor muy jëmm jëmm ju taxaw muy waxante moom boo gisee boole nii waxee moom defal nga ma wala yow nangam di waxante moom waxiinu koo xam ne day mel ne jëmm ju taxaw la ci moom sëñ Bachir dafa wax ne sax day mel ne sëñ bu doon amuk feet maanaam ma ne sax ne weeru koor mooy feetu sëriñ Touba moo ay dem waaw nee na nee na moom si Amadou Bachir bu Ramadan masa tàmbali rek sëñ Tuubaa tàmbali waxtaan wi bu bu bu Shaabaan masa tàmbali tàmbali di waare lu bare bare bare fu mu toll nee na day waare di jàjji taalibe yi ci di leen wattali ko loo fo ak ay caaxaan di leen wax ne waaj leen weer wu wi ndax mi ngi tàbbi nee na dawul toog benn jataay bu dul ne dafa fàttali taalibe di leen wattandikuloo seytaane ak i pexeem leen wax ne duumoo ala tafaqudi nemmiku seen xol wax xab si jawaarixikum tey téye seen i cër nee na fu mu toll du toog benn jataay te waxu leen ne waxu leen loolu nemmiku leen seen i xol te téye seen i cër ndax noonu yàlla bi kat xam na ne waxtu wi ñu ko war a tëj léegi mu agsi muy xam nga saa bu weeru koor jotee dañ koy dañ koy dañ koy tëj suñ tubaane kon dee leen nemmiku seen i ndax xam na ne léegi mu agsi xam ngi mu xam loolu nag tax na day xër lool ci yàqal leen ba tax ku ci sàggan rek mu mu mu ji am njiwam mu bon ci sab xol bu ko defee buñ ko tëjee lu weer yu gën a dem rek lam jiwoon di gën a màgg nit kooka di gën a tàyyal ci jaamu yàlla ak def la koy jëriñ ci weere ñu ne kon nemmiku leen seeni xol ndax seeni xol mën a sell ba mën a taataan leeri may yàlla yi nga xam ne ñooy wàcc ci weeru koor daal nee na daal di leen wax ne leen saa bu weeru ko jotee dañu ubbi bunti àjjana yëpp sunu borom gën a jege jaam yi ñaan yi di yéeg may yi di wàcc suñ ci kon na ngeen wattandiku noonu yàlla bi ndax mi ngi sàpp seeni xol mu ngi ci bunti seeni xol di leen foglu saa bu ngeen sàgganee rek mu sànni ci am joom nee na loolu du toog benn jataay te wax leen ko mu sëriñ loolu bokk na ci ni mu ko daa waajale bokk na ci ni ko da wajale mom serigne ag na ci sax di di di takal ay néeg sax ramadan maanaam bu wéru koor daan waaji ñëw sëñ wa daana taklu ay néeg defar lu ay néeg yo xamne wéru koor kep ko tax a diko defar lu ay ay basang basang yi rombu jaan moy basang yi yo xamne amna lu koy wër bari nañu ko xam bëreetul léegi sëñ wa daana ci defar lu lu bari ngir wéru koor bokk na ci ni ko doon wajale gas lu ay ten teen yoo xam ne sahru ramadan a ko tax a jóg loolu kenn mës koo gis bu doon jamono ji mën ngaa ay forage yoo xam ne weeru a jóg am na ten bu mu tuddee sahru ramadan am na teen bu mu tuddee ramadan ak teen bu mu tuddee rabiul awal loolu ci bëgg ak fonk gi fonkoon weeru koor daan ko daan ko daan ko daan ko waajal daan ko waajal ci la bokk bokk na ci ni ko daan waajale bu weeru koor daan bëgg ñëw Sëñ Tuubaa yitte joo ko wax ak lu mu rëy rëy bu dee benn nga ko wax da koy ful defal la ko da koy ful te bu la koy defal da ci ànd ak mbégte ak cawar lool boole ci di di wax ay kàddu naan la xanaa da nga koy waajale gan gu tedd gi xanaa da nga koy waajale gan gu tedd gi xanaa da nga koy waajale gan gu tedd gi nga xam ne mag ñi bokk ci ëpp ñu ko xamoon ku ci amaa aajo joo xam ne jàpp nga ne boo ko waxee mën na ko mën na ko bañ a def da ngay bàyyi ba weeru koor gi ñëw wala weeru gàmm nga ñëw nga ñëw wax ko aajo jooju te lu ko ci waay wax lu mu rëy rek noonu ma ko waxee léegi daf koy daf koy daf koy daal di def du taxaw. kon Sëñ Tuubaa noonu la meloon ci wàccaayu weeru koor kenn mës a gis ku mel noonu ci fonk weeru koor ci teel ko waajal ak di ko di ko di ko di boole ci di di di xemmem loo taalibe yi weeru koor bu weeru koor yi bëgg a ñëw jataay gën a bari noonu ko Cheikh du Bachir waxee am na ci boo xam ne dafa bind arafi shahru Ramadan ak. baatu alxuraan daan ne roofi shahru ramadan juróom-ñett la bunti àjjana juróom-ñett la ku koy woor sunu borom dana la tàbbal àjjana arafi alquran juróom-ñaar la bunti sawara juróom-ñaar la ku koy jàng sunu borom dana la tëjal bunti sawara kon na ngeen ci farlu ci weer ngi ngir ngir xool jàngi jàngalin woowu bokk na ci dajale leen ne ah weeru koor waay bëgg a ñëw kat. dama bëgg koo xam ne mën ngaa boole liggéey bi ak koor yi buñ ca àggee nga di ko def koo xam ne nag mënoo ko na ngay bàyyi liggéey bi tey woor na nga bàyyi liggéey bi tey woor am ku ne sax jël ko man de Mbàkke dama mënta woor su ñu ko ana lu la ko te man mu ne ko dama amul lu ma doge awma lu ma xadde su ñu ko dama defe woon ne lu am ful la nga may wax sa moroom jaam képp boo ko liggéeyalee ba ngoon jot mu jox la loo lekk sàkka sa borom kon manes na gàttañlu ci ne señ djuba wacca yu melni la doon waajal wéru koor wacca yu mag wi ak li nga koy sax day day dem ba day mang wéru koor ta ta te ak ségul nga xamné day melni suñu borom daf koy daal di teel fay ngëneelu weer yi moom te weer yi ak ségul motax muy wax ne hibatu man li qada khayra fayadan tawajjahat li qabla shahr ramadan fay bëb bi baawaa di may yépp dugay digal ñëk mom wéru di ñëw kon mané sa wax ne noonu la sëñ Tuubaa daan waajale weeru koor kon nag nu mu ko daa dundee ba siif boobu sëñ Tuubaa daan séentoo weer wi di ko waajale bu agsee ba bi day gën a jëm kaw day gën a yokk waaye dara du ci wàññi ko sëñ Xabibullaahi nee na buñ masaana sëlmal timis ba weeru feeñ fu waaye toll da ngay dégg kàddu sëñ Tuubaa ci bis bu njëkk bi nee muy wax ca kaw ne nammaat leen pas-pas leen pas nammaat leen pas-pas yi yokkaat leen pësteef yi maanaam bu ko waxee ca kaw daal di tàmbalee waare ñetti yoon la koy wax tàmbalee waare su ko defee gaa ñi seen pësteef gën a yëkkati ko gën a gën a gën gën a gën a sawar jëm ci jëm ci weeru sell bi foofu la koy tàmbalee buñ jëlee timis jooja ba keroog ñuy am ñaar fukki fan ak juróom-ñaar saa buñ jullee julli farata jàng yaa xayra dayfin ngir tatagal gan gi gis bi mu feeñee ca eh, weeroo ca ca nekkee ci géej gi ci la ko defoon bi ñëwee nag njaarim nekk rek saa bu weeri feeñee dañ koy jàng xasida goo xam da ci dalal weeru weeru weeru koor yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi yow gan gi gën ci gan ñëw nga ëndaale mbégte ay mbégte nga ëndaale ci man ak tëbbi leeri may yàlla ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi kon nag maa ngi lay dalal di la tatagal boo xam ne amul fu mu yem maanaam amul fu ma la yemale laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi xira taati yow weeru maanaam foo toll ñëw rek yow <laughs> del del ñëw rek di gane ma teral di la berndeele ay jaamu yàlla muazzaman inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli la koy di di di ko di ko di ko di na ci ni mu daan dunde weeru koor yi moom sëñ Tuuba di ko di ko dundale si Amadou Basir wax na bu weeru masaana tàmbali jëmmi waa kër gi muy ñi ñi ñi seenu liggéey day yokk moo xam ñi féete ci moo xam ñi féete ci mbind moo xam ñi féete ci wàllu liggéey bi ñëpp seenu liggéey Sëñ Tuubaa daf koy yokk waaye day def ay jataayi xam-xam yoo xam ne kenn du ko wuute ñoom ñëpp dañ koy fekk ñoom ñëpp dañ fay dajaloo léeg-léeg muy waxtaan ci maanaay alxuraan yi fu mu toog di leen yee ci alxuraan di ci waxtaan ak ñoom ci maanaay alxuraan yi bokk na ci nee na bu fekkente ne da woor moom boo ñëwee aajo joo am sëñ bi dana la ko fajal boo dee di soññi nit ñi di leen digal ne leen na ngeen rafetal na ngeen na ngeen farlu ci jaamu yàlla di leen soññ it ci ñuy teewe julli naafile yi ci guddi gi waaye neen du leen bàyyi benn jamono boo xam ne dañuy nekk ci ak neen ba saytaan bi leen yàq xéewal yi nag nee na dara du fa jeex te fuñ toll mbooloo yaa ngi fa ndax doxandeem yi nga xam ne dëkkuñu fa nee na ay téeméer la ñu doon fekk si ay junni yoo xam ne mooy mooy mooy dëkk ya fa nekk di taalibe yeeg ña fa nekk waaye neen fuñ toll ceeb bi cere ji ak tàndarma ji ak suukar si lépp day day day bu doo jotee nee naan yi dañ koy def ci ay barigo te ko ci biir kër gi kenn du ko tere kenn jëmmi cin yi nga xam ne ci la ñuy tàngale kafe ak ataaya yi Cheikh Amadou Bassir wax na ne maanaam taal ya du giim du fay dañuy taal rek buñ sotti tegaat ba keroog waxtu lekk di xaraam muy muy fajar wala sax na aminte daan wax ne maa ñoom ñu yoroon wàll yooyu dawuñ noppalu ndax fuñ toll dañuy dañuy dañuy séddale neen dañ daan tàmbali bu doog jotee di séddale ba fajar jot. neen ñu doog a bàyyi buñ jullee ba mu xaw a naaj ñu dem tëdd noppalu ne tuuti neen tuuti la tëdd rek ndaw yi sëñ bi ñëwaat soññi leen ngir ñu ñu ñu demaat ci liggéey bi ndax mag ñëpp fa lañ daan daje bu waxtu doog jotee nag lépp dañ koy nos teg ko ci yoon maanaam bu dee ñi nga xam ne dañooy ay xeej ji lañ ak ñi nga xam ne ay mbooloo ay mbooloo lañ ak ñi nga xam ne dañoo ànd ak ñenn ak ñi nga xam ne ñoom képp la kenn ku nekk. nooy tax nga gën a mën a xéwlu rek noonu lañ la koy defalee bu dee ñu ànd ñu ber leen ñoom kese bu dee koo xam ne moom képp moo ànd ñu ber ko noonu la léeg-léeg sëñ Tuubaa génn bu ñu ndogu jamono yi ñuy ndogu léeg-léeg sëñ bi génn ñëw ci ñoom ngir dolli teraanga ji ngir gis gi ñuy gis moom wala mu wool leen waaye sama bési nee bu ñu gisee jëmmi sëriñ Tuubaa ji ak taar ba ak euh, sopplu gaag sell gaag maanaam daal <laughs> bu ñu ko gisee jëmmi sëñ bi day far. neexitu gis gi da leen di fàtteloo neexitu neexitu ñam yi moo leen di dàqal moom Serigne Touba lu lépp ci weeru koor yi moo daan tax bu weeru koor masaan ñëw Serigne Touba daawul tëju ay tëjoom daf koy wàññi day génn ci ci ci ci mbooloo yi ak ci ci xeej yi yëpp léeg-léeg mu génn fii léeg-léeg mu génn ngir rek ku ñëw mu faj sa mu faj sa yitte Cheikh amoon Bachir nee na bokk na ci nim daan dundale weeru koor moom Serigne Touba bu weeru koor masaan ñëw. dimmi màggat yi jigéen ñi sax sëñ bi daf leen di gën a nemmiku di leen nemmiku di di yittewoo seen mbir ak kilifa yi boroom xaw xam yi it da leen di gën a yëkkati ñi nga xam ne ay cheikh yi lañ leen day gën a eh, di diisoo ñoom ak di leen teral ñi nga xam ne ay bokkam lañ mu leen di gën a jegeel boppam di leen nemmiku di fa yónnee ak yooyu yëpp gone yi mu leen di bégal noonu la ko noonu bokk na ci ni mu ko daan dundee. ku nekk fa moom rek ñëpp mu yëkkati seen i yitte di leen soppaloo seen borom laay lépp nag ci ak ñeewant la koy def maanaam ci ak dal nee na weeru ko suñ tubaab daawut gëdd kenn donte ku muy tër bi yàlla sax bu lay jubbanti ci ak ak ndànkal la koy def du du du du la gëdd bokk na ci li gënoon a fees ci weeru koor ci suñ tubaab mooy dundal alxuraan ak joxe loolu mooy jaamu yàlla yi nga xam ne. moom la gënoon a moom la gënoon a moom Serigne Touba ci biir weeru koor ni mu ko daan dundee wax nañu guddi gi njaareem kër ga def daan riir moom Serigne ci weeru kër gi naka jekk na la waaye weeru koor daf ciy raw ndax alxuraan ji xiyaamul lay di di la ci guddi gi moom Serigne Touba ci jëm boppam moo koy taxawal boppam bu jullee ca jàkka ju mag ja bu noppee bàyyi leen ak imaam bu leen jiite ñëw ci biir kër gi jiiteel ñi nga xam ne mooy waa kër boppam yi di soxna yi. day nekk ci benn mi'raab moom sëñ bi nga xam ne ñoom duñ ko gis waaye dañuy dégg kàddoom gu sell ga ak ak ay yëngatoom mu di leen jiite ñoom ñu nekk ci biir jàkka ji ñoog yenn ci soxna soxnay taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw ngir barkeelu ci julli gi sëñ Mouhamadou Bachir neen li sëñ Tuubaa di di leen jiite la ca gën a new mooy fane euh, fukki rakka ak ñett moom la leen jiit bu noppee dugg ci biir di jàng alquran wala mu julli ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala muy bind ay xasaayit yoo xam ne da ci deeyaale borom mu bind ci weeru koor daf daan yokk am bindam ci biir weeru koor bind na ci xas de yu bari yoo xam ne weeru koor la ko jagleel xasida yi mu bind rek jagleel ko weeru koor mat na juróom fukk ak juróom-ñett ci yu ñu gis nga xam ne ëpp na ko dañu gis rek mat na lool daf daan gën a taxaw ci eh, ñi nga xam ne ñoo yor wàllu naafila gi di nemmi ko seeni mbir di taxaw ci seeni mbir di seet ba xam mokkal nañ alxuraan nga xam moo koy saytu boppam ndax xam nañ axkaam yi axkaam yi tajwid yëpp daf koy saytu ba mu leer nañ bis bu ñëwee di war a jiite weeru feeña bañ war a tàmbali naaf léegi neen lim leen jox ci alal daf leen di mën a yor ci bis ci ci weer bi te teewul bis bu set daf leen di jox alal bu weer wi jeexee ba kori kori gi jeexit lam leen di joxaat daf leen di mën a yor diiru seen dund noonu la daan def am kum tànnoon koo xam ne ab taalibeem bu ñuy wax Abdullahi ibnu Abihi am ñuy wax ibnu Ayhi mu dëkkoon gànnaar nga xam fa la daan jóge loolu li ñor gu ñor ñoroon sëriñ bi ginnaaw ko ñu wax sa jaadaw yaakaar naa moo ko ci ci ci ci naafile gi ñoom ñëpp di ñu mën alxuraan te jekk ko bokk na ci ni mu ko daan dundalee sëñ bi warmaal weeru koor ba weeru koor bu mosaan dajeeg nawet taw bi wàcc ci weeru koor sëñ Tuubaa day taataan ndox mi ak taw bi wàcc ci weeru gàmm ñaari taw yooyu sëñ bi daf leen daan taataan ngir di di di barkeela ndox mi wala lam ci jublu ci la daan tàngal ataay ak ak ay café yu bëree bëri yu bëri bëri da ko daan def bu weeru koor saan ñëw day mel na lu loo lu nit def lu ak ma yàlla daf koy neex gis nga suñ Mouhamed Lamine Diop Dagana nee na am jamono yoo xam ne ndox yi mu daan jël di ko di ko seeral di ko yóbbu ci biir jàkka ji bu doog jotee gone yi ñëw fa di doog waaye seen coow day bëri ba mujj suñu aafiya mu baax ma daal koy wax ne ko na ko génne yóbu ko fe bu ko defee dé sëñ bi déggatul coow li daal di koy woo moom suñu moom Lamine Diop Dagana ba mu ñëw si mu ne ko anal liggéey boobee nga daan def da ko koo defatul mu ne ko si ñaafee ma wax ne naa ko génne ca bit yóbbu ko fële suñu daal ne bisimilah gone yi woor ba ngoon jot de seen coowul danaa naan du ma naan coow lool day naqari na seytaane coow loolu neexul seytaane nga xam ne noonu la ko sëñ daal di daal di dégg waaye xam naa bu nekkee fee day gën a féex xam naa bu nekkee foofu day gën a féex waaye nga gis ne kon. weeru koor day mel ne dara lu ko dàqari lu dul lu dul lu dul lu lu bon noonu bokk na ci ni Serigne Touba daan dunde weeru koor